Coen si booy moo gën a gën a liggéey si première mi bi. ndeysaan arbitre suuf na. dem bi suuf na diggante Lac Rose ak Coen. ndeysaan diggante Lac Rose ak Coen. ndeysaan Lac Rose sànni na gauche droite. Sène. liggéey lu wow. champion. liggéey lu wow. lan moo tax Lac Rose. waaw jeexal ci combat bi ci cinq minutes. waaw te booy bi mayu ko loolu. non du ko may parce que Covence booy daal liggéey liggéey lu wow kong lagros Rose liggéey na may Covence booy liggéey na. lamb bi mënul yombee noonu si Lac te daa gëj a daa gëj a bëre gëj am ndam. te daa tey daa war a ñëw confirmer moom Lac Rose. waaw li nga wax dëgg la dafa ndox moom kees moo gën a compétir. moo gën a compétir gën am mujj si terrain bi moom ki nga xam moo di Covence booy tegale ay dynamite victoire 2009 la gëj a daanu. lay laax la laax. diggante Quench ak Lac Rose. diggante Quench ak Lac Rose ñoom ñaar ñu ngi lewtoo. ndeysaan position bu amoon moo amaat diggante Lac Rose ak Quench ndeysaan. ndeysaan. ndeysaan. ndeysaan diggante Lac Rose ak Quench. tànk bi mu jiital li ngeen Coventry tànk bi mu jiital moo seen Lac Rose moo tax bala moo ñëw si moom am si sa waay da koy gis dugal na góos moom Coventry mais cokkaas la laay laaxi la laa jàppante amagul jàppante loxo si bara laay laaxi la laa Coventry booy ak Lac Rose dugal góos duraat xeex raak góor bu daanu góor bu daanu ñoom ñaar ñi ngi xeex xeexu mbedd diggante ak Quench Lac jël na ko Quench bañ na Lac Rose jël ko Quench bañ na Lac Rose ngay dóor Lac Rose mu ngay dóor ñoom ñaar jàppante lañ ay bii combat amateur yi nag lii nañu soxla amateur yi lii nañu soxla diggante Lac Rose ak Quench ñoom ñaar jàppante nañ ndeysaan ndeysaan diggante Lac Rose ak Quench diggante Lac Rose ak Quench ñoom ñaar jàppante nañ ndeysaan laa ilaaha laa ilaaha illallaah Quench daan na ko Quench daan na Lac Rose jël bi amul benn werante Quench daan na Lac Rose bi amul benn werante laa ilaaha illallaah ndam li mujjee ñu dem yoof waxoon naa leen fiix ci kanam ndam li faas na jëm wala yoof ci kanam dina leer ndam li mu nee ñu dem yoof ndeysaan Quench daan na ko jël bi amul benn werante xoolal ma lii rek. dëgg la dëgg la la ma ko topp ni yàlla la. yàlla fi ne yàlla fi ne. kii am dëgg waxee boog kii am baax kii di baax kii baaxut. waaye suñu teewaay doyal. toj na la sa doyal. toj na la sa doyal. kii ba njëkkee doo xel. lan la koy soxorom lan la amatu xorom dam koy suukar léegi lem la lem. lem la léegi lan la amatu xorom da ngay lem.